waa Basa Ngor Teranga la jeunesse de TVF les femmes de TVF ku gis jataay bi xam ni TVF ku gis jataay bi xam ni Benno Bokk Yaakaar ku gis jataay bi xam ni le parti alliance pour la république du président de la république Macky Sall am nañu ay gan gan yoo xam ni nag dañoo gane si pour dëkk ndax gan day ñëw nga teral ko mu dem waaye jeunes yi ñëw ay gan yu ñëw pour ñu teral leen ñu dëkk ak la may fàttali rek ni réunion bi réunion d'évaluation benn point de presse la rek bu ñuy def pour levaluation de la révision des listes électorales dans la commune de Tivaouane ndax ñun nag yàlla dañoo bindee ñu jëlee suñu engagement duñ ci boole coow dañ koy matal ba mu mat sëkk ku ne gis na ni bi président Macky Sall jógee ni nañu wàññi ay nitam ci parteem monté ay comité ñun rek si suñu wàllu bopp ak yéen ñii monté nañ ñu toll ci téeméeri comité ak ñaar yu bokk ci biir ci biir te liggéey boobu nag day wéy ndax bari na ñu may woo ci département yi ñu ne ñu bëgg ànd ak yow montaay comité incha allah liggéey boobu dinañ koo continuer wante nag ku ne xam na ni at mu ne su élection jubsee dafa am lu ñuy wax révision des listes électorales bii nag amoon une particularité maanaam Sénégal dañu wax ni soo jëlee lu ëpp daanaka juróom-ñaar fukk ñëpp ci suuf la ñu féete ay ndaw lañu wante presque tranche d'âge bi nga xamante ni nii amaguñu 18 yi dañoo bari ñi koy soog am ñu bari mu am ci benn contex muy lan gis nañ ni am na ay idéo yu bees yuy génn ndaw na ku ko xam ku ko woo ci révolution ku ko woo ci xumbaay ku ko woo ci saaga ku woo ci sànni xeer day yomb nga jot ci ndaw li loolu indi lan mooy suñu biir coalition suñu biir parti bari na ñu ragal sax élection yi ñu jëm si révision yi ñoom ñu jël ay ndaw bind leen ndax nee nañ kat ndaw yi bu ñu leen bindee amaana mën nañoo bañ a woteel ñu ni xanaa responsable boo xamante ni nii jegewoo say ndaw nekkook say ndaw dëkkook ñoom di leen jàppale di leen dimbali foo tool comme ñun nag yàlla def na jege nañ suñuy ndaw suñuy responsable am nañ ay ndaw ñu téye ñu ne ñun nag du ñu raisonné noonu dañuy ñëw ci gox ya goxaat yi ci biir Tivaouane quartier yi suñu responsable ya fa ne ndax ndaw yañ doon àndal ci élection locale yi ñu nekkoon ay ndaw yoo xam ñu si bari sax mataguñ woon voté wala mataw nañ waaye amuñu carte ñi ngi fi te bëgguñu ku dul président de la république Macky Sall mani man day dama ciy am taxawaay bu mat sëkk maag ñi may àndal ñu créé benn commission et c'est le moment pour moi ma féliciter remercier laaj ngeen tàccul ma bu baax a baax Souleymane Souley ak ñi mu àndal ci biir commission boobu da nga xam ni majaara lim na leen léegi mu ànd kook ay jigéenam ñoom Mati Mbaye ñoom Awa Cissé ak ñi mu leen ñëpp ak ñoom majaara def liggéey bu mucc ay bii Souleymane jaar naa ci yow féliciter la bu baax a baax féliciter commission bi ci liggéey bu rafet bi ngeen def ñun nag am nañu satisfaction ndax suñ ne ci biir commune Tivaouane trois mille cinq cent vingt six maanaam deux mille sept cent soixante quatorze primo votant ñoo xam ne ñi ngi soog a wote ñoom la ñu inscrire ñi nga xam ne dañ doon wotee feneen di wotee fii toll nañ ci huit cent deux ñu ni ñaari juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeent yi ñu bind ci biir commune Tivaouane waxuma benn Bokk Yaakaar waxuma APR waaye ñun suñu groupe ñun kese bind nañ ci lu toll ci junni ak ñeent fukk ak juróom-ñaar gàcce ngaalaam loolu mooy lan mooy téeméer boo jël ñeent fukk yi wóor nañu ni ñii moom ñoo jàpp seen loxo yóbbu leen ñu dem bindu ji ñi def modification tollu ci juróom ñetti téeméer ak ñaar maanaam 802 ñeenti téeméer yi ak juróom ñetti fukk muy 480 wóor nañu ni ñii ñun ñoo jàpp seen loxo yóbbu leen ñu def changement d'adresse maanaam téeméer boo jël juróom benn fukki yi ñun ñoo leen yóbbu ñu def changement d'adresse soo boolee lépp te boolewu ma ci duplicata yi nga xam ni wax nañ ko léegi juróom-ñaar fukk ak benn yoo xamante ni nii dañoo réeraloon ñu jox leen ñu dem jëndi timbre toll nañ si juróom-ñaar fukk ak benn ñooñu suñ leen ci boolewul dañuy wax ni soo jëlee primo votant yi mooy ñiy soog a am wote ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo modifié seen adresse ñi nga xam ni fii lañu leen enrôlé ci biir suñu permanence bii organiser leen yóbbu leen toll nañ te xam leen xam fu ñu dëkk xam ni ñun la ñu faral. c'est important. ndaxte nag am na ñu ñëwoon ñu xam leen ràññee leen wóoluwuñ leen naxante ne añ am ñoom ba ñu dem te inscrire wuñ leen amaana buñ inscrire ñoo inscrire seen bopp. ñooñu toll nañ ci junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñaar muy mille cinq cent vingt sept mille cinq cent vingt sept soo ko rapporté ci trois mille cinq cent vingt six maanaam ci biir commune Tivaouane téeméer boo jël ñeent fukk ak ñett directement fii lañ jóge ci permanence bii nekk ndut ñu yóbbu leen ci commission bu ñu dem inscrire kon tiitaange bi nit ñi amoon ba ni ñoom du ñu inscrire ay ndaw ñun de jàpp nañ ci commune Tivaouane bu ñeneen dindoo it parce que lii jàpp leen ni mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo leen yóbbu mais bari na ñu faral président Macky Sall jaar ci beneen yoon dem bindu bari na ñu faral président Macky Sall jaar ci beneen yoon dem bindal seen bopp kon su metti woon ba metti sax force yi au pire des cas inscription ak modification yi bees yi mënul nekk à la défaveur de président Macky Sall waaye ci faveur am rek la mën a nekk ndax ñun ñi ñuy bind ci biir la grande coalition ñoo ëpp fuuf ñi nga xamante ni bindu nañu te jóge nekk ci biir opposition bi te ku ne xam na ne opposition bi du benn nit du benn boor boor yu bari la kon nag ñu sant yàlla bu baax bi nga xamee ni ci révision des listes électorales wax dëgg yàlla ñun suñu camp joué na ci rôle bi mu ci war a joué ba tey jii président Macky la mën na dalal xelam ci lan ci kër yi ndaw Tiwaawan yi nga xam ne ñi ngi soog a bindu ñu ëpp si ñoom moom la ñu àndal ndax encadré nañ leen ba ñu bind mu des nag li ngeen wax lii sax day doon suñu première rencontre ak yéen parce que ndaw moom faaw li ngeen wax mu am suivi parce que dañuy bañ ku leen fëkk dañuy bañ ku leen nax dañuy bañ comme duñ koy waxee ku naan seen maayin te loolu nag faw toog waxtaan am tey dañ ni nañu jël benn échantillon su leen mille quarante sept ñu ñëw fekke wante bala muy yàgg xëy na fii ak tabaski su xatee suñ ko weesoo dinaa leen may benn guddi wala bëccëg boo xam ne dañuy ñëw mu nekk déjeuner wala diine débat ñu toog ngeen waxtaan ak yéen jàkkaarloo ak yéen loo xam ni du ma wax jeunesse bi yëpp rek ndax am na lu ñuy préparer pour la jeunesse du département mais boobu yéen laa koy jagleel question réponse discussion parce que dama bëgg non seulement ngeen doon ay militants mais ngeen doon ay relais su ngeen demee seen famille ak seen moroom yi nga xamante nii ñoom ngeen nekkal ñun lii mooy liggéey bi nga xam ni moom la ñu fas yéenee def ma leen wax ni nag vous avez fait le bon choix jël ngeen la bonne porte d'entrée bu baax ci wàllu politique muy lan dëkk politique moo koy yore ndaxte ci politique la ñuy jaar pour falkan fal ki nga xam ni moom la ñu dénk suñu santé dénk ko suñu dëkkuwaay dénk ko suñu sécurité dénk ko suñu environnement dénk ko alam bi muy muy muy muy muy muy si géej gi ak ci joor gi dénk ko élevage dénk ko agriculture dénk ko suñu njàng bref da tànn nit pour ni kii yow laa dénk sama ëllëg kooku ngay tànn nag tànn ko nekkul ci feeling nekkul ci tànn kuy bonde nekkul ci tànn kuy kuy karaate nekkul ci tànn kuy sol képpi nekkul ci tànn koo xamante ni lam lay wan da koy fan nit nag mën nga ko fan waaye gérer réew c'est tellement sérieux que kenn du ko teg ci anam yooyu fu ñu koy teg mooy critères yi mu laaj pour ñu dénk ko nit faaw kooku mu matale ko bi ci jiitu mooy mu am xam-xam bi bi ci tegu mooy mu bëgg réewam beneen bi mooy mu am expérience maanaam doo jàngee ba yëy këy te amoo expérience suñ la tegee ci bërëb bërëb boobu doo fa am benn njariñ kooku nag ñun am nañ ko muy kan muy président de la république Macky Sall ba pare ki ngay jël day méngoo ay valeur ak valeur dëkk bi ñun nag suñu dëkk bi bu ñu xam ku yaru tey bëgg nit ñi wàcce boppam du leen arrangé du leen saaga du leen ñàkk kersa xam ne ak ñoom ñoo bokkee bokk ñoom ay valeur ni mu fonke suñu kilifa diine yi fonk maam Cheikh Seydi Hadji Malick fonk maam borom Touba fonk maam Limaamu fonk Baye Niass fonk Serigne Ndiassane fonk nit de manière waaye nag gëm am gëm-gëm que suñu Sénégal gii la am feneen bu fi amul ba léegi am na lu ko téye te lu ko téye ñun jàpp nañ ni mag ñi si la ñu bokk ku am valeur yooyu nag ba pare surtout olof nag bala nga ne naam ne fa te bala ñu fii ne faaw jàmm ne fi kon nag kuy woote ay bokkoo kuy woote jàmm nag ba mel ni président de la république Macky Sall kooku moo jar a téye dinañ am occasion sur nuit de réflexion boobu ñu échanger mais ma bëgg rek taxaw wax leen ni ndaw ñi ñun duñu ay mag de waaye nag ku def ñaar fukki at ak nangam sa administration ba weesu yenn nii mën nga yaakaar ni lii nga xamante nii wërsëgu Sénégal la pour yéen la d'abord muy lan dëkk bu ne am nga ñaan yàlla am pétrole ak gaz pétrole gaz nag yeneen dëkk ya am te gérer wuñ ko nañ ko war a gérer ña ko war a téye téye wuñ ko ay étranger ñëw ndar képp leen di ko jël alal ja di ko yóbbu ñooñu ñoo ëpp problème ci àdduna bi or bi dañu am un ingénieur géologue koo xam ni suuf la xam ak fan la pétrole bi féete loolu la jàng yàlla may ko wërsëgu mu ñëw ñu gis pétrole ak gaz war ko commencer exploiter ren pétrole gaz boobu warul nekk entre de des mains inexpertes dafa war a nekk ay loxo yoo xamante ni yu ko xam la gis ngeen li ngeen di dégg wax naa ko waxati ko ci contrat pétrolier ñaan Sénégal te nag ña kay wax xam nañ ni la wax du dëgg de mais dañuy bëgg a yàq xelu nit ñi Sénégal buñ exploité pétrole am gaa 10 pour cent lañ ciy am or waa ji bu ñëwee di seet rek pétrole bi bu ñëwee di seet société ba muy créer ca la Petrosen di am 10 pour cent su gisee mu am 20 pour cent Sénégal ñëw. jëlaat une yi ak taxes lépp boo ko boolee Sénégal dina ci am 64 pour cent maanaam ñeent fukk ak juróom-benn ak ñeent ci téeméer boo jël. te autour du pétrole et gaz foofu nag la solo bi ne pour ndaw yi lu ma téeméeri métier parce que ñu pétrole gaz lañ ko xam yaakaar nañ ni dañuy jël rek defar mu taal làmp taal oto non lii di defar ay éponge lii di agriculture tey lépp luy engrais dañ koy jéggaani di ko jënd daaw gis nga ne engrais dafa manqué su weesoo ay ICS yi ko dafa amu fi pétrole ak gaz bu ñëwee waxuma la rek engrais non seulement dañ koy am ba mu doy si njëg bu yomb mais dañ koy jaay à l'extérieur métiers yooyu yëpp dafa soxla ay ay ndaw dafa soxla ay jeunes dafa soxla ñoo xamante ni nii dañ ci utiliser plus de cinq cent métiers bu fekkee nag saggan nañu ba loolu génn ci loxo président Macky Sall suñu ëllëg ak seen ëllëg day nekk ëllëg bu ñu kon dama bëgg ngeen indiwaat seen xel delloo si waat seen esprit xam ni yëf yu nekkul ci sànni xeer daw dàqante toog ci kër gi kii kii laa àndal kee laa àndal noo fi mu nekk mooy ngeen am lecture bu leer kan lan mooy intere Sénégal tey président Macky est-ce que amati na lenn lu muy utati ci àdduna amatu ko bu dee ci wàllu koom tey tey su génnoon institution internationale yi xëccoo ndax jaar-jaaram waaye moom si boppam ñu ñuy ànd ak moom ñoo ko wër taxaw ko tem ni ko dëgg la de yaa bëggoon rek pour wane la bon exemple si démocratie ni boo defee benn mandat sept ans ak cinq ans naam loi bi may na la ko da ngay préféré dem mais ñun dañ ñu ko non il faut nga rester pour defaat en deux mille vingt beneen mandat posé tu as déjà posé les jalons de l'émergence nga poser maintenant les jalons du développement du Sénégal parce que boobaa dinañ am ressources yi ci loolu lañ leen invité ngeen taxaw ci yéen ñëpp tem bu leen nangu bu leen làqatu nit loo nekk da nga ciy nekk ñu xam ne yaa ngi ci bu kenn ruus bi wax man ki laa àndal ànd ak président Macky Sall mooy ndam fu leen neex taxaw leen wax ko quoi que vous kon Sénégal am na occasion à partir de 2024 développement nekk loo xamante ni lu yomb lay doon ndax tey boo waree defar tali kulikoro wala daa le cœur des profondeurs nga def ko ci programme bi dem uti xaalis mais bu dee nga pétrole ak gaz da naan lii xaalis baa ngi fi li ma dese rek mooy si ñaata temps laa koy defar te nag occasion bi buñ ko ratee danañ reculer ay ati at ca gannaaw parce que ku taxaw naan stade amul solo te pourtant stade bi tax tey ñu respecté ñu stade Abdoulaye stade du Sénégal Abdoulaye Wade tey ji soo demee à l'extérieur mais est-ce que du ndam ci ñu ñu ni Sénégal soo xoolee aéroport yi ci Afrique yëpp moo ci gën aéroport ndam na et tout ça c'est sous le président de la République Macky Sall ba pare ñu ni soo jëlee àdduna bi yëpp seen taux de taux de croissance bi nga xamante ni at mu jot ñu natt ko ki ci gën a régulier maanaam ñii dañuy yéeg wàcc di osciller mais Sénégal moom day yokk rek depuis président de la République Macky Sall ñëw est-ce que lii du ndam lii ivoirien yi malien yi li may wax ni dëgg la de burkinabé yi nee nañ ñun suñu bëggul président Macky Sall loué leen ñu ko avec option d'achat te nag bala ngay xam li Sénégal am nga génn jarul ngay sori génnal Sénégal rek dugg dëkk bu mu taxalool génnal Sénégal rek dugg biir Afrique di nga xam ni li Macky Sall def depuis 2012 ak tey yéem na ay pair président am yéem na men européen kon te nag nit ku nekk sa wërsëg ba mu ñëwee léegi lu ngeen gis ci sport bi ndam rek ndam ndam ndam ndam ndam ba ci U17 bii di ñëw ñu ngi waat final suba yàlla nañu te suñu gañee day nekkaat suñu cinquième coupe mais loolu day nekk rek que ni moom jig na Sénégal mais très franchement li leen di wax nii suñu xol lañ ko tibbee ngëm-ngëm la ci ñun mooy lan suñu bëggee suñu réew Sénégal jéego yi nga xamante ne nii def na ko ci wàllu développement su fekkente ni nii yéene nañ suñuy ndaw ëllëg bu leer nga xam nañ am liggéey teral seeni wayjur ñun jàpp nañ loolu pour mu am faw président Macky Sall desat fi 2024 2029 pour yeggale li mu fi indi gannaaw évaluation bi daal lii laa teniroon en guise d'introduction jox leen un avant-goût suñu toogee waxtaan yi ñuy war a waxtaanee nga xam nañ leen permettre lu réer seen bopp ngeen posé ko question ngeen posé ko